Ajakai final poids Desa final poids Nyok Alias Jen mbig pap Ali wala mbig na Gallo. waaw ak moom nyau ngeen Alias Jen moo Kanau woon mulu bulali. eh ngeen seen nako na ko. pelak nako ndeysaan ñaari njool la ngañ seen alias sol na ko naax na ko alias takk na ko alias takk na ko alias takk na ko alias Diène alias Diène takk na ko alias Diène takk na ko donc alias Diène Ngagne Sène ndeysaan di bëggee sama caméraman sampa sénégalais ndeysaan sama am seen sagadat fa teew ma la fa teew ma Odzo daan na ko Ngagne Sène daan na ko